أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi mu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu di am mbégte ak kontante daje ak mbokk yi ci barab bi nga xam ne yàggoon na luñ fiy daje comme ni ko jéen waxe léegi nga xam ne yàlla rek moo nu boole depuis boobu mu wax ba fii nu toog li tax ñu jaxasoo ànd mooy liggéey bii di liggéeyu lislaam noo ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla na yàlla rek tax moom dong dong kenn kot rek tax sunu ànd bi nekk su ñëwee ci li nga xam ne moo nu fi dajalee te mooy waxtaanee al islam wa tahaddiyat al muasir waxtaane diine ji de lislaam ak dëkk yi ko dëkk kar naa léegi waa Sénégal moom xam nañ mbirum dëkk su ma nee dëkk nag jubluwuma ci dëkk ci kër mooy ni mbër yi def bu ñu séenee seen moroom bëgg am ak moom combat daal di sempi ndënd ñëw samp ko ci kanamam loolu mooy dëkk moom la ñuy wax défi atahadiyaat l'islam dafa am ay mbir yoo xam ne moom la ñu samp ci kanamam yoo xam ne ñi ko fa samp dañuy bañ lislaam jàll lislaam am ndam tasaaroo looloo tax ñu jël seen samp yooyu samp ko ci kanamam yooyu nag dafa laaj ñun jullit yi pour ñu mën a jàll loolu dafa laaj ñu xam yooyu suñu ko xamul dañuy yëngatu ba sonn kër këri waaye mbir mi dara du ci dem mbir yooyu mbokk yi ci waxtu yi ñu fiy def danañ ko tënk def ko ay tomb def ko lu tolloog fukki tomb ak benn kon yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg ànd ak ñun ci waxtaan bi ngeen di bind na ngeen xam ne ci tomb yii di fukki tomb ak benn ci lañ bëgg a def waxtaan bi waaye tomb yooyu bi ci njëkk mooy al ilhad mooy athéisme benn defi la bu nu samp ci kanamul islaam ñaareel bi mooy ashahwaat mooy bànneexi bakkan ñetteel mooy zarul xilaaf fi sufuufi almuslimin mooy wuute bi nga xam ne tasaare nañ ko ci biir sàppe jullit yi ñeenteel mooy wasfu diin bi tatarruf ay ay al irhab mooy tuumaal gi nga xam ne tey ñu ngi koy tuumaal jullit yi di leen wax ne ay terroriste lañ juróomeel mooy al muamarat alal mar'a xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jigéenu jullit juróom benneel mooy taxalluful muslimin mooy ñàkk conscience bi jullit ñi ñàkk conscience te mooy seen deltu ginnaaw ci lépp ci àdduna juróom ñaareel mooy al ijaab bi xadaratil kuffaar yéem gi nga xam ne jullit yi yéem nañ ko culture occidentale yi occidentaux yi juróom ñetteel mooy al fahmul xaati lil islam mooy déggin bu ñaaw bi jullit yi dégg l'islam juróom ñeenteel mooy al xawfu min al islam fil garb mooy Europe ragal gi mu ragal l'islam fukkeelu tomb bi mooy sadaamul xadaraat mooy mbëkkante gi nga xam ne culture islam bi mu ngi koy mbëkkante ak culture occidentale occidentaux yi fukkeel benn mooy al awlama mooy mondialisation kon su may delluwaat ci tomb bu njëkk bi nga xam ne moom mooy al ilhad wala bala ñuy dugg ci tomb boobu bu ñu defee muqaddima mooy li ñuy ubbee waxtaan wi ñun ñëpp mbokk yi lu ñu xam mooy inna al islam musaara wa muhaarab munzu an wujida ala al ard lu kenn mënta weddi moo xam ñi koy weddi ay soppe lañ wala ay noon lañ li kenn mënta weddi ñëpp bokk ànd xam ko mooy lislaam dëpp mu nekk lislaam ba fii nu nekk dañ koy xeex dëpp yàlla bind suuf ak asamaan mooy mbokk yi lislaam dañ koy xeex xeex boobu nag dafa bokk ci sunanullah fil kawn ni yàlla bindee àdduna dafa sàkkaale lislaam ak xeex ak ay noonam moom yàlla subhanahu wa taala moo wax loolu ci alquran mu ne wa kazalika jaalna li kulli nabiyin aduw min almujrimin wa kafa bi rabbika haadiyan wa nasira suratu furqan aya 31 sunu borom subhanahu wa taala ne man yàlla maay ki sàkkal bépp yonent ay noon ci ay kàccoor bépp yonent bu yàlla mës a wàcce am na ay kàccoor yu ko song ne mission bi muy dox du dem li yàlla bëgg ci kaw suuf bu mu am beneen aaya borom bi ne walaw la dafu llahi nnaas baaduhum bi baad la fasadati l ard su doon dune ni yàlla tabaraka wa taala défendre nit ñi ci kaw suuf kon suuf day yàqu ndax ku ëpp sa moroom doole won ko ko waaye yàlla subhanahu wa taala moo défendre nit ñi yàlla moo leen wat léeg-léeg nga dégg gen américains yi ñu ne ñoom ñooy gendarme yoo xam ne ñoo nekk ci monde bi ñoom ñooy indi jàmm fépp loolu la ñuy wax waaye loolu de moom ab julit waru ko gëm addina bi ki fi tëral jàmm di ko doxal di ko wattu mooy yàlla subhanahu wa taala ndax boobu ba léegi yéen a ngi gis américains yi fu ne dem nañ fi ci kaw suuf waaye terewul jàmm amul kon nit ñi seen jàmm yàlla subhanahu wa taala moo ko yore keneen yorewu ko mu ni wali anna hadha diin bi azamati la budda lahu min aada diine ji nag ci màggaayam ak reyaayam bi ko yàlla subhanahu wa taala bindee fokk mu am ay noon fokk mu am ay caaxaankat yu jóg bëgg a baare l'islam pour l'islam du tasaaroo mu ne loolu fala budda an yafhama du'at wa talabati ilmi wal ulama wal mutawajjihuna ila allah mu ne yéen ñii wooteel yàlla yéen ñii di ay borom xam-xam yéen ñii di ay ndaw yuy sàkku diine yéen ñi bëgg a dem ci yàlla foog ngeen xam ne am na danger bu nekk ci seen kanam pour ngeen waajal ko ku bëgg a egg ci yàlla tey ci àddina bi foog nga am coono ku bëgg a wuutu yonent yi tey fii nu toll foog nga am jafe-jafe lu tax ndax ay nooni diine ñoo fi nekk samp fi seeni ndënd ne lislaam du fi amee ndam te am nañu moyen yu nekk am nañu nombre bi am nañu pexe bi am nañu doole bi kon looloo tax la budda li duaat ñiy woote ñu xam loolu ñiy sàkku xam-xam foog ñu xam loolu wal ulama ak borom xam-xam yi foog ñu xam loolu waaye du ñooñu rek wal mutawajjihuna ila allah ak ñu bëgg a jëm ci yàlla subhanahu wa taala mu ne mu nekk nag masala xatira mu nekk benn masala benn làcce bu bu ëmb ay danger waaye ndax mbokk yi dañuy wax rek ne sunu kanam doolee ngi fi ay pexee ngi fi ay noona ngi fi dañuy wax lool rek ñu daal dem sol sunuy manto ut sunuy sijaada ak sunuy kurus dugg ci biir néeg yi di jàng alquran di naafila di jooy ne adduna bi dañoo murtat ndax dañ ñuy wax loolu rek ñu daal di débrancher sunu loxo ci adduna bi ndax dañuy wax ne ay noona ngi fi yu soxor yu am ay arme yu am doole yu am pexe yu am fit yoo xam ne ñu ngi tëkku lislaam ndax dañuy wax loolu rek ñun ñëpp ñu daal dem dem nelawi sunu biiri néeg sàngu sunuy mbàjj comme ni mu amee ni ko ni mu ni ni mu amee tey ay borom xam-xam yu ko def yoo xam ne ñemeetuñu wàcc ci terrain bi wax ak jullit yi ne leen laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy dëgg ndax dañuy wax ne ay noon a ngi fi rek ñu daw ndax dañuy ragal ñu tuddee ñu ay islamiste ba ñu bàyyi terrain bi ndax dañuy ragal ñu tuddee ñu ay fondamentaliste ba ñu bàyyi dëkk bi ak noonu yàlla yi ak àddina bi ak noonu yàlla yi su loolu amee mu nekk njuumte il faut ñu xam ne jàmmaarloo loolu fokk mu am loolu mooy sunanullah fil ard il faut jàkkaarloo am il faut xëccoo am il faut xeex am il faut nit ñi tuur saani rongoñ il faut deret tuur loolu bu ko kenn ragal a wax ndax loolu mooy sunanullah fil ard ban yonent moo ñëw samp kàddu yàlla ci kaw suuf ci jàngale rek ak naafila ak woor wax leen ma ban yonent la Ibrahim dañ ko jàppoon takk ko dugal ko ci safara Yuusuf dañ ko sànni ci biir teen Muusa Firawna daf ko topp ba biir géej Seydina Muhammad dañ ko génne Makka mu dem Medinatul Munawwar te terewul ñu bàyyi ko xeex na Badr xeex na Uhud xeex Ahzab wa yawma Hunaynin xeex na Hudaybiya loolu yëpp jàng ngeen ko ci islaam loolu yëpp jàng ngeen ko ci ay textes yu leer kon bu kenn ragal ñu tuddee la ay baat loolu dañ la koy wax pour xoqatal la pour ñoom ñu def li nu bëgg noonu yàlla yi dañoo yor ay pexe looloo tax ñu tiital ci ay jullit su jullit yi dawee bàyyi teere bi ñoom ñu samp seeni caaxaan jël jaami yàlla yi def leen ay fawkaay looloo tax ñii liggéeyal yàlla ci kaw suuf foog pexe yooyu noon yi yor ñu xam ko suñ ko xamul du ñu mën a liggéeyal yàlla ci kaw suuf ndax fu ñu dem rek day fekk terrain bi ñu miine ko yéen sama mbokk jullit yi il faut ñu comprendre bu baax a baax sunanullah fil ard mooy almuwajaha ku bëgg a liggéeyal yàlla da ngay ñeme naaj da ngay sori keppaar gi da ngay sori congélateur yi da ngay sori lal yu nooy yi da ngay sori keppaaru jigéen ñi ku bëgg a liggéeyal yàlla ku bëgg a defi yi noonu yàlla yi samp nga dindi ko foog mbir yi leer sa bopp su fekkee mbir yi leeru sa bopp da ngay liggéey rek ci ndànd fay-fay gi mais du am benn résultat su ngeen gisee tey l'islam tumaranke ci Sénégal mooy liggéey biñ koy liggéeyal ci Sénégal moo organisé wul liggéey bi moo amul bopp amul genn amul fu mu tàmbalee amul fu mu jëm ku nekk rek da ngay làmbatu mooy mooy loolu ñu naan taxabut ku nekk da ngay làmbatu rek di def ay programme mais amul organisation loolu moo tax jullit yi tasaaroo quatre-vingt-quinze pour cent quatre-vingt-quinze pour cent musulmans ci Sénégal mais dama leen di laaj di leen laaj ndax yàlla tax loolu fan la feeñ ci sunu dund même politiciens yi nga xam ne ñoo bëgg a jot réew mi nga xam ne tey jullit yi mënoon nañoo toog di am ndam te duñu def benn campagne yow da ngaa bëgg réew mi jullit yi rek kenn ñaar ngay dajeel ñoo xam ne jullit yi ñoo la fi teg su teg jox la seen programme lii lañ bëgg soo ko defee ñu wootee la boo ko deful ñu sànni la fa la ci àll ba waaye loolu amul parce que jullit ñi dañ leen a nax te yooyu yii nax yi ñu leen nax dina ñëw ci tomb yi ma lim muy fukki tomb ak benn nga xam ne défi yooyu mbokk yi bi ci njëkk bu ñu nax jullit yi muy samp bu ñu samp seen kanam mooy al ilhad mooy athéisme ñaata doomu jullit la ñu génn tey ci islam bàyyee leen tur kese kese kese kese waaye fekk duñu ay jullit yàggul lenn ci ñetti at ak léegi RFI def na fi benn émission bu mag di wax franc-maçonnerie ni mu réussir ci Afrique ci Sénégal ci Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire te ñu ne mi ngi gën a tasaaroo ci jeunes intellectuels yi daanaka ñi génn ñu bees ñi ñëpp ay franc-maçon lañ te ku nekk xam na franc-maçonnerie lan mooy liggéeyam ci kaw suuf te fan lañ koy jaare mooy ci école yi ngeen gis la ñuy recherche di fa jël ay nit ñoo xam dañ leen di may ay bourse ci booy yi dàq jàng yóbbu leen ginnaaw bañ leen gëmloo athéisme génne leen ci l'islam ba set wecc yéen xam ngeen ci dara xool leen profilo yi sunu doom yi la ñuy jàpp di leen gëmloo ne yàlla amul génn ko ci seen bopp ba mu set wecc cours bu nekk prof bi bu ñëwee lu muy wax ak yow mooy yàlla amul ba pare di ko démontrer question boo indi mu weddi su ko defee bu fekkee am na fa ñu amul woon formation ci seen biir kër yi kër yu vide yi nga xam ne dara amu fi kër yi dañoo vide amul islam mbedd mi dafa vide dëkk bi vide ñu jël xale yooyu nag léegi gëm loo leen loolu loolu moo tax l'islam tumaranke ndeysaan te ñooñu ay doomu jullit lañ waaye doomu jullit yoo xam ne lan lañ am ci tur mooy lan lañ am ci l'islam mooy tur Abdallah rek benn boroom xam-xam nee na bi ñu bi Sénégal amee indépendance nee na gars yi di xëccoo réew mi ku nekk naan moo koy jël ñu ne président Senghor dafa dem ci sëriñ yi ne leen man de duma jullit mais dinaa fexe ba ñu ëpp ci gouvernement bi yëpp ay jullit lañ ni doon gars yi ne ko ah loolu de moo nuy gënal ndax réew mi ay jullit lañ mu daan leen di indil ay turu jullit yoo ay nit ñoo xam ne tur yi jullit kese la waaye ci biir allahu aalam yàlla rek moo xam turu jullit yi kese waaye ci biir seen pas-pas seen ngëm-ngëm lan la yàlla moo xam ca jamono boobu nag la ñu amee woon problème ba tey suñu buggee sampi simpi bii di al ilhad athéisme foog ñu jàngal jullit ñi ci base bu ndaw bi jardin d'enfants gis ngeen case de tout petit tubaab yi dañ naan ki détient l'école détient tout man imtalakal madrasa imtalak kulli shay ku moom école yaa moom lépp xale bi bi mu juddoo yow lan la la lislaam waxoon mooy na nga ko jàngal laa ilaha illa allah bi muy tàmbali di mun a wax xale boobu léegi loolu amatul ci moom bi mu case de tout petit lañ koy bu wala jardin d'enfant lan lañ koy jàngal foofu fecc ak woy ba mu dem école primaire lan la fay jàng ci diine su fa génnee ñëw ko ci CM yi lan la fay jàng bu génnee dem lycée lan lay jàng bu génnee dem université lan lay jàng su dul ku yàlla bëgg mu amoon base ci ndey ak baay yu gëm diine mu nekk benn jullit bu murtat depuis ba mu nekkee amee juróom-ñaari at suñu tëralee l'islam ñeme naa ñëw jël paaka rendi ko parce que xamul l'islam dan may wax démb benn histoire boo xam ne daf ma yéem benn jigéen boo xam ne doomam dafa jàng ci école catholique yi sept ans jardin d'enfants trois ans CICP deux ans muy cinq ans CIC2 deux ans muy sept ans école tëj école tijji mu dem ñu ne ko école bi fees na xale bi du fi jàngee mu ne leen da ngeen dof man sama doom jàng fi juróom-ñaari at ngeen ne du fi jàngee mu jaral ko mu dem ba gis cardinal bi kookoo ko bindal këyit pour ñu jël ay doomam te moom moom moomu jullit la xoolal sonn bi mu sonn ci ay doomam jànge ji ci ay école catholique lu tax parce que catholique yi ñoo organisé parce que ñoo nangu organisé ñoo nangu def lu baax ñun xoolal école yi niñ ko yàqee da ngay gis xale bu jàng CI ba CM2 mënul lire mënul bindu turam parce que ñee ñoo nangu organiser ñun jullit yi nanguwuñ def dara nanguwuñu participer dara ci réew mi gis sax réew maa ngi yàqu ñu jël ci sunuy matukaay xam ne ñun ñooy majorité comme ñoom ñu ko defee ci njàng mi def ko ci santé def ko ñun tamit ñu def ko su ko defee mën a indil jullit ñi yoon wu baax ci wàllu xam-xamu diine waaye ak xam-xamu adduna mbokk jullit yi tomb bi di al ilhaad te mooy athéisme xam-xam moo koy xeex su nit amul xam-xam ba yawmal qiyaamati day alku nit mënul nekk jullit ba pare nekk ku athée mënul nekk parce que athée mooy yàlla amul ak ya ca aju ñaareelu tomb bi mooy ashahawaat ci dëfi yi ñu samp mooy bànneexi bakkan bànneex fexe ba ne nit na gëm bànneexam te xam ngeen alquran lim ñu wax fa amma man taxa wa aasara alxayata addunia fa inna aljahima hiya almawa képp koo xam ne ci ñun da ngaa topp say bànneexi bakkan da ngaa bew ba yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg ci yow nangoo koo def borom bi nee na ëllëg damay jëflanteeg yow kon jullit li ko njëkk a gàllankoor ci diineem mooy topp bànneexam comme tey nuñ ko nuñ ko tasaaree ci àddina nuñ ko nuñ ñu ko taaralee lu neex ci yow rek baax na lu neex ci yow ndeysaan benn xale daf may wax léegi léegi benn mbokk mu ne tubaab bi bi ñu xamee ne jullit bu jigéen dafa war a muuru ñu xam ne buñ la nee bul muuru da ngay lank muuru ñu daal dem indil la benn forme mode du muuru bu bees gis ngeen léegi foo gis xale bu jigéen bu muuru mu ngi génne nopp yi ba pare daal di jël kal gi zigzag ko daal di koy laxas ci baat bi ba pare daal di dangal nag ba mu ne kaj paccal boole ci léegi su ko defee nag mu defa ne nag moom ndeysaan fi mu nekk sell na soo ko ne waa yow da ngay muuru mu ne waaw damay sellal est-ce que loolu sell na loolu nga xam nga ne sellatut luñ la ne woon muur ko nga génn ko ci biti ba pare ne da ngay sellal loolu koy xam nga ne seet yow sax da ngay nax sa bopp mais xam nga ne lii sellul kuy sellal ak ku la gis xam ne na du benn genre yooyu nag mooy forme yoo xam ne su ko jullit yi comprendreul dañuy yaakaar ne ñun ci diine fekk dañuy nax seen bopp mooy asahwaat na ngeen fexe lépp lu ngeen di def rek na ci seen bànneex jiitu bànneexi bakkan jullit su bëggee jaamu yàlla li muy njëkk a def mooy tere boppam bànneex moo tax imam Busiri nee na an nafs ka tifl mu ne xa bakkan moo xale buy nàmp ñoo yem xale buy nàmp dañ koy feral soow suñ ko feralulee mu ne mën na nàmp ba nekk màgget ndax daf koy tàmm soo bëggee jaamu yàlla da ngay feral sa bakkan nga jàpp ci sa bakkan nos bi bënn ko takk ci buumu yàlla yàlla di la wommat waaye bu fekkee yow say bànneex nga topp lu jóg lu la neex ngay soloo lu la neex ngay lekk fu la neex ngay dem lu la neex ngay def jàppal ne bàyyi nga sa diine bu yàgg ndax bànneexi bakkan ak diine munta ànd waaye defi la boo xam ne samp nañ ko sunu kanam taaral ko fexe ba gëmloo ne àdduna sa àdduna pour mu neex foog nga topp sa bànneexi bakkan foog ngay solo ni mu la neexee foog ngay lekk lu la neex foog ngay def lu la neex foog nga gëm lu la neex lu la neex gëmal loola tax mbokk jullit yi dafa am mbir yoo xam ne foog ñu leer mu leer sunu bopp ne yàlla bëgg su yàlla bëggee yow amatoo bëgg-bëgg jël bëgg-bëggam di ko natt ak li yàlla bëgg loola tax yonent alayhi salaatu wasalaam doon wax ci hadisam ba mu ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min yonent bi waat ñetti yoon ne kii may bëgg a wax gëmul yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla saaba yi ne ko ko kan la yow yonent mu ne laa yu'min ahadakum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi kenn ku nekk ci yéen doo mën a gëm yàlla lu dul say bànneexi bakkan ngay sànni fële topp man muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma indi léegi nag nañu xool suñu bopp ndax yonent yàlla muhammad li mu indi neex nanu wala neexunu foofu la coow li nekk seen ngëm yàlla du mën a mat lu dul ngeen sànni seen bànneexi bakkan ngeen topp ma man muhammad li ma indi ku nekk nag nattal sa bopp ndax man li may dund nii ndax neex na yonent bi ndax neex na yàlla nattal sa bopp rek di nga xam ndax yaa ngi ci diine wala nekkoo ci diine kon bànneexi bakkan dafa bokk ci yooyu nga xam ne day tere nekk jullit jullit defi la bu samp ci kanamu jullit ngay fanaanoog moom di yeenoondoog moom nekkandoog moom ci biir kër gi nga defa ne jullit nga fekk sànni nga sa diine imaginal jullit buy soloo ni l'islam bëggul jullit buy liggéey lu l'islam bëggul jullit bu dëkk fu lislaam bëggul jullit buy lekk lu lislaam bëggul ba pare ne man jullit laa soo waxee rek ñu ne garaawul quoi amul problème yàlla dinañu comprendre ñenn ñi sax dañ naan ah yàlla sunu maam la bu yekkee ca maire ya soo demee nga dégg ñu ne nga dégg benn maire ndeysaan day def lu ko neex ba pare mën naa fecc sax soo waxee mu ne mag buur la lu mu def yàlla baal ko ko loolooy suñu problème kon loolu daf cee bokk ñetteel bi ci li gàllankooru samp ci kanamu jullit yi mooy ziraul xilaaf zarul xilaaf fi sufuufi lmuslimin tasaare wuute ci biir jullit yi loolu defi la tasaare wuute ci biir jullit yi na ngeen fexe ba jullit ñi bu ñu déggooti xool leen tey mbokk yi àddina bi li fi nekk ci xilaaf ci monde islamique ëpp na boroom xam-xam yi dañ doon wax xilaaf même bu munta ñàkk ci masala diine ji mooy ci julli mooy ci jàpp waaye tey dañoo wuute di wuute di dem di dem ba wuute bi egg ci pas-pas yi tey booy mën ngaa tànn fukki façon jullit fukki façon jullit yu bokkul ndax wuute fukki façon am na jullit boo xam ne moom gëm na ne mën naa bañ a julli loolu dara nekku ci waaw moom julli sax daf koo wàcc am na jullit boo xam ne gëm na ne moom d'accord naa man dinaa julli mais koor moom il n'est pas question hein kooku garaawul damay joxe ndogu rek jullit bi moom gëm na ne màkka jarta dem yàlla toxal na ko indi na ko mu ngi fii demal foofu rek jullit bi moom gëm na ne yonent yàlla muhammad fañ ko suuloon ci Medina génn na fa bu yàgg moo ngi fii ci ginnaaw raay toog nekk na fi sept siècle am na beneen jullit moom daal di tëll fële daal ne man yàlla laa eh gars yi ñu ne mu ne maay yàlla fii la gën a gaawee ci man kooku ne ko keneen ñëw ne ko déedéet yow doo yàlla mais man boo ma toppee ma won la yàlla xoolal façon jullit yi kañ la ñuy déggoo ñi ay siit lañ ñi ay sunit lañ ah te ndeysaan jullit jullit rek la yàlla xam yàlla xamul beneen jullit jullit rek la yàlla xam xamul keneen alquran moo ñu wax ne huwa sammakum muslimun min qabl gis nga ci tasaare xilaaf boobu may wax nii nga xam ne dañoo tasaare jullit yi bu ñu déggoo soo jëloon léegi micro nga nekk journaliste nga dugg ci biir kër yi nga ñëw ne asalaamualeykum waa ji ne la maaleykum salaam nga ne ko yow lan nga au lieu mu ne la man julli laa déedéet daa man ibaadu laa nga dugg beneen kër gi nga asalaam yow lan nga mu ne man murid laa fan yële passé dafa am benn conférence moo doon def ci benn quartier moo doon Cheikh Ahmed Bamba ak El Hadj Malick lan lañ bokk maanaam conférence bi ay murid ak ay tijaan ñoo ko organisé ñuy joxe carte yi ñu dugg benn kër waa ji ubbi mu xool conférence murid tijaan mu ne téel téel sa carte ñu ne ko la la mu ne bokk ma ci man xaadir laa ana ñun ana ñun bokk ma jël nga jëlal jëlal ñëw ma gis nga gis nga coow li looloo tax dafa am masala yoo xam ne bu leerul suñu bopp dañu am problème foog ñu xam ne tuur yooyu fële lañ ko war a teg islam mooy mbir mi jullit mooy mbir mi jeex na suñ la wooyee ci benn conférence ñu ne la yàlla yonent looy wax yow ndax da nga naan bokk ma da nga ci gis sa bopp wala doo ci gis sa bopp kon gis nga tur yii def ñuy tàqale te yàlla waxul nañu tàqalikoo yàlla dafa ne waatasimu bi hablillahi jamian wala wala dégguma dara dama sama dama am problème mu nopp wala loolu muy tekki bu leen tàqalikoo jàpp leen yéen ñëpp ci buumu yàlla gi bu leen tàqalikoo wala loolu leerul ah yàlla de yàlla yamul ci loolu mu ne inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shiyaan lasta minhum fi shay ñi tàqale seen bopp ci diina ji yow Muhammad bokkoog ñoom dara mbokk yi jullit yi lan lañ bokk ñun jullit yi lan lañ bokk ñoo bokk benn borom wala ñoo bokk benn yonent wala ñoo bokk alquran wala ñoo bokk weer wu ñuy woorandoo ñoo bokk fu ñuy jublu suñuy julli ñoo bokk lu ñuy jàng muy alquran kon li nu boole ak li nu tàqale lan moo gën a bëri kon lan moo nu tàqale lan moo tax jullit yu tàqalikoo dañoo tàqalikoo ba tàqalikoo ci laa ilaha illa allah da ngeen may may de damay leeral rek dii nga tuma de dama bëgg am ay tomb yoo xam ne dafay leer suñu bopp pour ñu xam ne ñoo war a ànd ma ne dañoo tàqalikoo ba tàqalikoo ci laa ilaha illa allah su ngeen ma mayee rek ma wa ma limal leen ma liiral leen ma jàngal leen kër gu nekk ci ni Sénégal nooy waxee sa laa ilaha illa allah pour boo takkee rajo di ko wax kële bu la déggee mu xam ne ah kii day bokkuma ak moom am ñoo xam bu ñuy wax laa ilaha hey laa ilaha hey boo ko déggee nga ni ñuy waa kër ñan la am na ñoo xam ne a laa ilaha boo ko déggee ñooñu nga xam ñan la loolu mooy problème ku nekk am nga façon laa ilaha illa allah te laa ilaha illa allah benn kese la ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun jullit yi warul am façon waxuma dara sax waaye mbax na yi mbax na yi mbax na yi mbax ne sax dañu am problème da ngay xam mbax ne kii de ibaadu la kii de tijaan la ah ah kii sa waay murid la moom mbax ne mbi waaw ndeysaan ba ci yére yi ba ci kurus yi ba ci kaala yi lan moo ñu war a tàqale ñun ñëpp jullit lañ laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah jeex na gis nga ku dugg bàmmeel yonent nee na inna al mayit ida wudia fi qabri wa tawalla anhu asaabu mu ne ataahu malakaan suñ la defee ci bàmmeel rek ba nit ñi ñibbi rek ñaari malaaka ñëw ne la yow jaamu yàlla bi jógal toog nga jóg toog ci biir bàmmeel bi ñu commencé di la laaj lan lañ lay laaj ban tarixa nga bokk est-ce que loolu lañ lay laaj kuy sa pap kuy sa yaay kan mooy sa sëriñ déedéet ci ban kër nga bokkoon wallahi alazim kenn du laaj loolu xam nga lu la malaaka bi laaj maada kunta taqulu ala hada al abd muhammada loo doon wax ci yonent yàlla muhammad kon jeex na kon ndeke mbir mi foog ñu comprendre bu baax ne nii ñu wuutee nii ñu tasaaroo noonu ñoo ñu fi jaarale waaye du lislaam lan la ñu jàng ci hadis al muslim lan lañ jàng ci hadis al muslim jullit jullit mooy mbokkam yonent ne masalul muminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masalil jasadi lwahid ida staka minhu udu tadaa lahu sairul jasadi biseyri walhuma yonent ne ne jullit yi ni ñu war a mel ci ànd ci jàppante ci bëggante ci dimbalante mu ne dañoo war a mel ne yaram yaram mbokk yi yaram bu bopp méttee ndax tànk day football yi su bët méttee ndax loxo day doxi su nopp méttee nan la yaram bi def léppay tëdd léppay yëg feebar bi te pourtant benn côté rek mooy metti ci yaram bi fan mooy metti mooy bopp bi kese mooy metti waaye tànk day indi solidarité loxo indi soli yaram bi yëpp daa tëdd kenn du ne bopp moo feebar man sama yoon nekku ci déedéet yonent nee na julli di noonu la ñu war a mel yemu ci sax mu ne al muminu lil mumin kal bunyaan yasuddu baaduhu baad yonent nee na jullit yi ni ñu war a mel dañoo war a mel ne tabax tabax birig yi dañuy jàppante yonent nee na jullit yi noonu la ñu war a jàppante kon mbokk jullit yi nanu yëg ne bokkul ci lislaam taqalikoo bokkul ci lislaam wuute bokkul ci lislaam tasaaroo bokkul ci lislaam xilaaf yenn saa yi ñu ngi ci jëm ñu ngi ci jëm ndax tey ñu ngi ci saabaan saabaan bu deewee lan mooy ñëw ramadaan ramadaan mooy lan mooy weeru koor ñu ngi ñëw yenn saa yi nga gis ci dëkk bu ndaw bii nga xam ne treize millions kese lañ treize millions nga gis ñu woor ñetti woor ñi woor lundi ñi woor mardi ñi woor mercredi benn dëkk bu ndaw bi suñ demee bay wari nga gis ñi wari mardi ñi wari mercredi ñi wari jeudi ñi wari vendredi ñi wari samedi fun jëm taqalikoo boo xam ne ci bànneexi bakkan kese lañ ko teg waaye teguñu ko ci masala diine ci bakkan kese ku nekk jàpp ne man maa nekk ci dëgg sama morom bii dafa réer dafa alku su dee day dem safara allahu akbar ku nekk nga jàpp ne yow li ngay wootewu loolu moo war a duuf loolu nga war a réyal xoolatoo intérêt l'islam su ngeen demee ci téere Muhammad al Misri bi mu bindee nihaayatu nihayatul aalam signes yi wane ne adduna bi mu ngi jeex adduna bi jeex bokk na fa ci benn buntu ci téere ba bu mu tuddee almahdi almahdi kan mooy mahdi ci biir bi muy wane kan mooy mahdi mahdi fan lay bokk lan mooy turam turu papaam lan mooy turam moom imaamul mahdi fan lay feeñ da ngay dégg mu ne mu ngi bokk ci sëti alxasan kan mooy xasan doomu ali kan mooy xasan doomu fatima kan mooy fatima doomu yonent bi muy wane xikma bi tax imaamul mahdi di bokk ci xasan xikma bi lan moo tax yàlla génnewul mahdi ci Husayn génnewul mahdi ci Zaynab génnewul mahdi ci kenn waaye mu génne ko ci Xasan lu tax mu ne Xasan ci xilaafa lislaam yi Xasan dafa waroon falu waaye Xasan bi mu faloo ci Médine am keneen ku koy contre ci Iraq ku tudd Muawiya Assane gis ne su toogee fii ne mooy njiitu jullit ñi waajale toog fële ne mooy njiitu jullit ñi jullit ñi danañu tàqalikoo danañu xeex danañu reyante deret dana tuuru Assane daa di woo jullit ñëpp ñu ñëw mu ne man wàcce naa sama bopp bis ni ki tey jox naa Muawiya xilaafa gi ñu ne ko lu tax mu ne damaa bañ jullit ñi reyante ñu ne moo tax loolu mu wàcce woon boppam loolu tax toogul woon ci xilaafa gi loolu la ko yàlla fayee génn ci ay sëtam kuy toog buñ demee ba axira zaman di waaj a jeex dina toog juróom-ñaari at di jiite jullit yi ñu ne loolu mooy hikma ci yàlla génne almahdi ci njabootu alxasan doomu fatima doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne ay jullit duñu tàqalikoo ay jullit dañoo war a nekk benn ay jullit dañoo war a bëggante ay jullit dañoo war a jàppalante ay jullit dañoo war a wóoluwante ay jullit dañoo war a mel ne yaram ay jullit dañoo war a mel ne tabax yonent ne jullit jullit ay mbokkam mu ne laa tadaabaru wala taqaatau wala tanaazau wa kunu ibadallahi ixwanan almuslim axul muslim yonent nee na bu leen tàqaliko bu leen bañante bu leen tasaaroo bu leen xëccoo jullit jullitay mbokkam mu ne yéen ñëpp na ngeen nekk ay jaamu yàlla nekk ci benn buum mbokk yi loolu moo doon ñetteelu tomb ñeenteelu tomb mooy wasfu diin bi tatarruf bokk na ci li ñu samp defi ci kanamu jullit yi mooy tiitale jullit yi yéen ay fondamentaliste ngeen ay fondamentaliste ngeen tiitale ko jullit yi wala ñu ne leen islamiste ngeen wala ñu ne leen yéen da ngeen a ëppal ci seen wàllu diine léeg-léeg sax léeg-léeg mbokk yi danañ ci joxe ay message joué ci ay théâtre def ci ay film wane ci ay image yoo xam ne sax yi ci gën a garaaw ay montage lay nekk waaye ndeysaan yooyu sax du métti parce que ñeneen ñoo koy def waaye léeg-léeg ñu jël ci ay jullit fexe ba yàq seen bopp yi def ci loo xam ne buñ leen joxee bomb ñu dugg ci jàkka taal jàkka ji ñëpp dee comme fan yi ni mu xewee Arabie Saoudite ak feneen ni muy xewee ci àddina bi nga xam ne benn jullit la ñuy jël def ko comme film carton xam ngeen film carton comme film Mickey fexe ba jullit boobu nekk Mickey ñu gëmle ko sa mbokk yi dañoo alku dañoo war a dee mu dem rey leen su ko defee ñu jël image yi nag wane ko ci télé bi daan ne xoolal li ñuy wax ci jullit yi ay terroriste lañ ñoom ñëpp ay reykatu nit lañ mbooloo moo dugg ñu lay xoole loolu foo juux ñu ne terroriste yaa ngi nii da ngay ragal sax yenn saa yi soo nekkee jullit tukki tukki tukki nga dem dëkk boo xam ne amul ay jullit soo demee ñëpp lay daw da ngay wéet tumaranke lu tax ndax image yu ñaaw tey ci àddina bi yu ñuy wone fekk am na ci yoo xam ne sax ndeysaan bu leen fàtte yàggul dara ci Algérie bi fiis gagné élection yi France moo formé ay nit dafa leen ay sikkim ñuy def ay attentat ñu naan ay jullit la loolu politique boobu feeñ na ci archives yi léegi ne France moo ko defoon noonu ngeen koy gisee ci ay film noonu ngeen koy gisee ci ay image noonu ngeen koy gisee fu nekk partout pour pour lan pour tiital jullit yi ne islam diiney rey nit la islam diiney deret la li ko tasaare mooy jaasi mbokk yi tomb yooyu ak wax yooyu li ko weddi bëri na ci ay texte bëri na ci ku jàng siira yonente alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee mu nekk màkka bi mu commencé di feeñal diine ji ko yàlla jox nan la ko yéeféeri màkka def moom ñi mu nekkaloon nan lañ leen def fa la ñu reyee Sumayya màkka fa la ñu reyee Yaasir fa la ñu lakkee Xabaab fa la ñu toroxale Bilaal rey ci saxaaba yi lu kenn mën am na benn bis boo xam ne dañoo xëy taal këru jullit yépp yonent xam ne lii amatul jàmm mu ne génn leen ngeen dem Éthiopie loolu moo indi gàddaay yi ngay dégg gàddaay yi ne yonent bi gàddaay saaba yi gàddaay na ñaari yoon dem Éthiopie ñetteelu gàddaay gi mooy ñu génn nag Makka dem Médine nag éternellement benn dootuñu ñëwaat loolu moo indi yonent bi des Médine tey loolu moo indi ñu suul yonent bi Médine loolu moo indi ñu suul yoon waa kër yonent bi yëpp Médine mooy gàddaay googu ngeen di dégg waaye lu waral gàddaay gi mooy xatal buñ ko xatal màkk terewul ba léegi déggoo fu yonent bi ne xeex leen fayu leen reyante leen ak ñoom waaye même biñ nekkee Médine bàyyiwuñ leen di leen fekki loolu moo indi Badr ba keroog aaya di wàcc yàlla di jox yonent bi ndigal nag ne fayu jot na nag ku leen tooñati fayu leen wa uzina lillazina qutilu bi annahum zulimu wa anna allah ala nasrihim la qadir ndeke li indi xeex jihaad ci islam li ko ci indi mooy fayu parce que dañ leen sonal léegi nag li des yàlla ne leen taxaw leen bu ngeen taxawul ñu jeexal leen ci kaw suuf kon loolu bu ñu ko bëggee indi di ko tuddee jullit yi naan leen yéen ay terroriste ngeen beneen bi leen di wan ne jullit yi du ñu ay terroriste Sénégal gii kan moo fi ñëw jàpp suñuy maam jaay leen def leen ay jaam jaay leen ay question yu may laaj nag te ay tontu laa bëgg su ma laajee rek dama bëgg tontu ma ne ndax jullit yi ñoo ñëw Sénégal jàpp suñuy maam def leen ay jaam jaay leen kan moo dem Mali jàpp ña fa nekkoon jaay leen ay jaam kan moo dem kan moo sànni bombe atomique ku defar bombe atomique sànni ko Hiroshima ak Nagasaki ah kon kay jullit du terroriste ndax jullit moom mu musul sax defar paaka paaka paaka waaye xoolal ki romb paaka romb fital mëkk dóom romb kalashnikov dem defar bombe atomique luy luy rafal àdduna ba pare sànni ko ci ay nit est-ce que jullit yee def loolu munoon naa leen dugal ci archive wax leen noonu yàlla yi li ñu rey ci àddina bi ci ay dëkk ci ay jullit barki démb Irak américains yi rey nañ fa un million ak genn wàllu musulman million wa nisf muslim Amérique rey nañ ko Irak Afghanistan ngi ne deret jaa ngi nàcc ba léegi Palestine moom kenn waxul li fa yahuud yi def Palestine juif yi amuñu woon dëkk anglais yeeg américains yeeg français yi ñoo leen dajale indi leen ba Palestine ci jàkka troisième jàkka ci jàkka jullit yi du nga xam ne dañ fa war a dem ndax ñetti jàkka rek ñoo dagana ñoo dagana dem ci islam ñetti jàkk ñetti jàkka ñoo dagana voyage yi ñetti jàkk waaye mbokk yi xoolal loolu ni mu mel jël ay nit yoo xam ne amuñu woon dëkk nga indi leen ba ci dëkk jullit yi sànni fa ay bomb jullit yi daw nga wàcce say nit yooyu dëkkal leen dafa pare defal leen sécurité te bés bu nekk ñuy tëj ay kër di avancé loolu ñan ñoo ko def ñun kay dañoo rëyu làmmiñ rek dañoo amul média amuñu doole waaye jullit yi musuñu nekk ay terroriste musuñu tuur deret ci àdduna musuñu defar bomb musuñu defar jaasi tooñ bu ñu leen tooñ moo tax yàlla farataal ci ñoom jihaad ne leen fayu leen kon il faut ñu delluwaat ci histoire suñ ñuy wax yenn yi ñu xam ne du nun ñu xam ne waxi kese la waxi kasaaw kasaaw la pour du ñu liggéey beneen muy juróomeelu tomb ci défi yi ñu samp ci kanamul islaam mooy almuamarat alal mara mooy pexe yi ñuy fexeel jigéen ñi noonu yàlla yi bi ñu xamee ne islaam dafa fonk jigéen ndax liggéey bi yàlla bëgg pour mu tasaaroo ci kaw suuf pour l'islam am ndam jigéen moo ko mën moo tax yàlla jël liggéey bi gën a rëy daa di koy dénk jigéen ne ko waqarna fi buyutikunna toog leen ci biir kër yi toog bi pour lan la pour yar ñi nekk ci biir kër gi pour defar leen gis nga ba noonu yàlla yi xamee ne jigéen mooy liggéeyu lislaam mooy liggéeyu lislaam ci la ñu tëral ay pexe fexe ba jigéen ñi génn ci biir kër yi waaw organiser leen ay mbootaay ubbil leen ay ay ay banque yu leen jege indi ci ay financement futti jigéen ñi yaramu neen ñii ñu teg leen ci tali yi ñuy bale ñii ñu teg leen ci keesu oto mbalit yi ñii ñu teg leen ci kees gi PMI yi ñii ñu teg leen ci pôlu cosmétique yi futti leen ba ñu set wicc wicc ne leen génn leen ñàkk leen kersa islam daf leen di tardeel kenn warul toog sa biir kër et puis naan sëy sëy moo tax da ngay dajeeg jigéen ne ko ana sa àllaaji bi mu ne delloo naa ko baayam ndeyam jigéen ñi koo fi gis léegi ne ko ana sa jëkkër mu ne delloo naa ko ndeyam la ilaha illallah terme boobu sax la lay utiliser yow ana sa àllaaji bi mu ne delloo naa ko ndeyam naka sa sëy ba mu ne sëy naa ko ba pare la ma doon sëy sëy naa ko ba pare ah ndeke sëy dañ ci pare ah ndeke sëy léegi ay waxtu la signature la ay contrat yaag waa ji deux mois trois mois nga uti leneen loolu foog ngeen comprendre li tax sëy yi am problème yaag ngeen ci def ay conférence li tax sëy yi am problème mooy dafa am ñu nekk ci ginnaaw pour jigéen bu mu toogati na jigéen ñi fettirlu wow bët wow bët dangiral jigéen jooñ ne mu ne la yaa ko xool de waaye yow gis nga li nga sol mu ne yaa ko xool de noo ko gisee loo may xoolee du yow da ngaa war a sajj sa bët boo sajjoon di nga ko gis terme yooyu lañ lay utiliser pour dootoo am noo mën a waxee ak ñoom loolu nag mu amaraat la mu amaraat su ngeen ko comprendreul da ngeen di toog fii dafa ne jigéen ñi modd bii ñuy dundee nii ñoo ko teg seen bopp déedéet xoolal film yi ñuy indi ci télé bi xoolal théâtre yi ñuy indi yooyu yëpp lu muy indi mooy ñàkkal jigéen personnalité ñàkkal ko kersa parce que jigéen su amee kersa rek neex a defar waaye jigéen bu ñàkkee kersa wow bët kenn mënatu ko defar ci àdduna yàqu na loolu tax foog ngeen delluwaat xam ne ay pexe la yoo xam ne dañ ko lal jaare la ko ci ay théâtre ak ay film ak ay ay ba futti jigéen ñi daf leen yaramu neen génne kersa ci ñoom te xam ngeen ne kersa yonent bi nee na ku amul kersa amoo diine ñaar yi ñooy ànd al imaanu wal xayaa su nit amul imaan munul am xayaa su nit amul xayaa munul am imaan ngëm ak kersa ñooy ànd su nit ñàkkee benn bi rek ñàkk beneen bi kon mbokk jullit yi rawatina yéen mbokk jullit yu jigéen yi xam leen noon yi pexe yuñ leen indil lalal leen ko pour dugal leen ci kàmbu safara ëllëg ndax jigéen xam ngeen fi ko lislaam fekk ci àdduna dan daan def ku am doom bu jigéen gas ba mu xóot muy dund nga suul alquran moo ko wax yàlla ne wa isal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat ëllëg yowmal qiyaam xale yu jigéen yi ñuy suul dinaa laaj yan bàkkaar lañ def ba nga am doom bu jigéen gas ba mu xóot suul ko soo waxee ñu ne day indi gàcce voilà gàcce googu ñu doon daw démb moo ñëwaat tey tey ku am doom bu jigéen nga nekk kilifa nga am doom bu jigéen tiit nga rawatina nag bu amul jëkkër bu sëyul ñaata ngay gis ci ay jigéen ci ay mère yu ñëw ci yow naan la ñaanal ma ay waay ñaanal ma sama doom yi sëy ma dundee guddi sax du ma nelaw sama xel dalatul c'est parce que dañoo yàq jigéen ñi dañ leen jaarale ci yoon yu bon dañ leen génn ci biir kër yi loolu ngeen di gis ñuy soññ nit ñi naan nañu yóbbu seen doom yi école ñu jàngi mooy nanu génn rek te école bi day yàq jigéen ma waxaat parce que programme bi ñu fay jàngal jigéen ñi baaxul xoolal soo demee ba lycée wala nga nekk CM ñu indi la benn programme boo xam ne mën ngay sëy di compter say nombre jour ci règle ñu gëmloo ne jour bii boo fi sëyee doo ëmb boo ko jàngalee xale bu jigéen bu amul jëkkër wala ñu indi ay capote ci biir école yi ne dañuy def formation dañ leen defal formation tey quoi ci la leen defal formation ci capote am na benn professeur du ma fàtte ci benn école privée bu nekk fii ci Pikine bëgguma tudd tur bi ñu xëy am journée set setal ngoon gi ñu ne benn docteur lañ fa indi mu defal leen formation fi mu toog di di jàngal xale yi di leen defal waxtaan ba ci àgg rek ñu indi affaire yi mu génne ko quoi di leen wan daan ne ku bañ a ëmb ku bañ a ëmb lii ngay utiliser xale yu góor yi bu ngeen bañee ëmbal lii ngeen di utiliser xale yu jigéen yi yéen seen bos lii la xale yu góor yi yéen seen bos lii la benn xale bu góor daal di jóg ne ko professeur est-ce que lii di nga toog sa biir saal sa biir néeg nga koy jàngal sa doom yu jigéen yi ak sa góor yi débat ba daal di tas wax na dëgg yu bon yooyu kenn du ko jàngale seen biir kër yi wala planning familial soo demee croix bleue nga fekk fa raa madame raa mademoiselle ana mademoiselle lu muy uti ci planning familial raa madame raa mademoiselle boo ñëwee dañ lay laaj madame ou mademoiselle nga ni mademoiselle ñu ne la fële ma ne nga ñëw ñu ne madame ñu ne ñëwal bi jëlal ticket bu xonq bi yaa jëlal ticket bu weex bi yow ku amul jëkkër lu muy uti ci planning familial mooy nekkal ci lu bon sëyal ba mu neex la sëy amul xaar jëkkër yaa moom sa bopp bu njëkk ba da nga doon dégg fii ci aada ñu ne jigéen jooy takk amul ndaw gàcce la léegi du gàcce maire yi ay ginaar la ñuy rey ak waa mais jëkkër bu guddee ñu këpp ko ci sër yi naan ne xemam de di tëgg sabar fajar fajar ñuy tëgg sabar daan de diw de dañ koo jébbale awaa mas ngeen gis ku ñu jébbale trois mois mu ëmb yenn saa yi nga dégg benn kër gu ñuy tëgg fajar sabar ñu ne loolu la ñu ne diw lañ doon jébbale deux mois nga dégg ah ah ah ah moom kat nee nañ daa ëmb kon liñ doon liñ doon tëgg lan la dëgg la yooyu ay caaxaan la nañ ci génne suñu bopp bu nax suñu bopp gis nga feek jigéen ñi delluwuñ ci li leen lislaam wax dëkk bi du baax gis ngeen tey daanaka mën ngaa xëy suba di konte jigéen bu woddu jigéen bu woddu mën ngaa xëy di ko konte jigéen bu woddu génn leen rek bu ngeen xëyee suba ngeen génn di doxi jëlal sa big rek di compter ñaata jigéen yu sol tubéy ak ñaata jigéen yu woddu yooyu dajeel léegi jigéen jotuñu woddu xoola tubéy yi ñuy sol suñ demee ba jigéen di def check down check down nu ngeen koy firee ci olof ah déedéet nu ngeen koy firee ci olof ah check down wax firi leen ma ko ci olof déedéet bul wax xoolal ci ginnaaw de xoolal sama awra waaw jigéen ne xoolal sama awra génne awra bi ci biti génne ay weenam ngeen defane yàlla subhanahu wa taala ay wali yoom yi defar àdduna ween yooyu di génn ci biti wali yu dina ci nàmp kan ci yéen mooy jël kalpe bu bënn def ci xaalisam kan ci yéen mooy jël portable di ko dugal ci poche bu bënn wala saak bu bënn wax leen ma ko ngeen defe ne yàlla dina fekk jigéen juy check down di paccal génne ay weenam ci biti génne boppam ci biti yàlla may ko waliyu gis nga jigéen ñi fi doon jur ñu baax ñi Cheikh Ahmad Bamba Alhaji Malik Cheikh al Islam Ibrahim Niass ñu baax ña leen juróon xam ngeen ne melu ñu ne ñii da ngay dégg waykat yi sax di leen way ba ñuy way maam jaara lan la waykat bi wax mësta julli te jàppul mësta wirde te ñaanul du loolu ngeen di dégg ndax lan ndax wéetal borom bi même photom yi ñuy dessiné doo gis mu mel ne sunu jigéen ñii te jamono boobu ak jamono bi du benn ay sëri dënk lañ daan muuroo musooroo ko muuroo ko ci xolal tàngaay boobu te maam jaara 23 ans rek la am 33 ans barakallahu fiik 33 ans fanweeri at ak ñett ñaari doom dong la musa am ci àdduna ñaar kon xale bu ndaw la woon mais kenn musul gis posteeram fu mu def bopp neen kenn mus ko gis waaw naka ñun la ñuy amee ay maam yu jigéen yu baax yu mel noonu ba pare ñu bàyyi sunu sët yi di dangiral di paccal di génne seeni ween génne seeni awra naka te ñooñu ci kër jullit ñi la ñu génne naka mbokk yi ba ci El Hadji Omar Foutiou soxna Adama Ayse jigéen ñooñu buñ lay leen di limal da ngay gis ci seen dund ñëpp ay jaamu yàlla lañ woon seeni borom kër ni ñu baaxe woon daanaka sax jigéen ñaa leen rawoon moo tax yàlla may leen doom yu baax yooyu ah léegi tey ñun ñu nekk sëtuñuwuñu tey Cheikh Ahmad Bamba soxna jaara tey bu ñëwaatoon Sénégal mu gis mu gis Sénégal jigéen ñi ni ñu mel soxna maam Fawad Dowele maam Roqoye Ndiaye Adama Aysa tey ñooñu ma wax seen tur bu ñu ñëwaatoon Sénégal ñu gis jigéen ñi nii ñu mel danan tàll de danan tànn delluwaat ci bàmmeel yi xaar yowmal xiyaam ba mu ñëw waaye duñu dundandoog ñun mu nax suñu bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju gis nga tiitaroo ay maam yu baax amul njëriñ léeg-léeg nga gis benn benn mandikat bu yor sàngara eh bambay waaja eh ak sa xam nga loolu nax sa bopp la loolu nax sa bopp la yenn saa yi nga gis soirée dansante bu musique bi di tëgg gaa yi di yuuxu ñu naan ku ànd ak Bamba sa loxo ci kaw gaa yi naan ni ku ànd ak Malick sa loxo ci kaw ku ànd ak Baye sa loxo ci kaw gaa yi di yëkkati seen loxo ci biir soirée ku ànd ak Baye ci soirée lan lay fekk ku ànd ak Alaaji Malik ci soirée lan la war a fekk ku ànd ak Cheikh Ahmad Bamba ci soirée lan la war a fekk bu nu nax suñu bopp bu nu nax suñu bopp ñooñu ku ànd ak ñoom ci jàkka ji lan la war a fekk fajar waaye waruñu laa fekk nga jógee ci soirée bi yor sa butéelu sàngara bokk sa benn sindax bu jigéen ngeen ànd nga naan Bambaay waaja wala Maaligay waaja abadan bu nax suñu bopp mbokk yi gis ngeen tiitaroo ay maam yu baax amul njëriñ yàlla moo nu ko wax ci alquran li tax amul njëriñ aaya la de tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yamaluun yàlla nee na ñu baax ñooñu ngeen di wax passé nañ dem nañ ñu nga dëla dem nañ tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wees nañ dem nañ yéen wala kum ma kasabtum lu ngeen dem yéen lu ngeen def yéen lañ koy laaj kon nanu xam ne bokk ku baax taxut a baax tukulóor yi nee nañ sada ñaama a nokki longere a fawi e hoƴƴuduma a tinata safi ngandata ko wuli booy lekk midi jot ñu tegal la boolub ceeb bu tàng jër nga tibb benn dànk boxoñ ko ba mu ron nga teg ko ci sa dox doo yëg ne saf na de lan ngay yëg tàng na doo yëg ne saf na waaye tàng na ngay yëg ñaamanam ñaamataa ko yaronam yarotaa ko daananam daanataa ko lekkal ma doo suur nelawal ma du dem yow rek allah yow rek kon ku baax kaa ngi ne nga koy tiitaroo te yow jéemoo baax du dem alxayru laa yanfau illa li failihi walchar laa yadurru illa li failihi fastabiqu alxayrat aynama takunu yaati bikum allahu jamia yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na lu baax du jëriñ lu dul ku ko def lu baax du jëriñ lu dul ku ko def lu bon du lor lu dul ku ko def wa an laysa lil insani illa ma saa kullu nafsin bima kasabat rahina mbokk yi su mbaax doon jëriñ kon yonent yàlla nuux jabar jëriñ jabaram wala d'accord ngeen wala d'accord leen su mbaax doon jëriñ kon yonent yàlla nuux mbaaxam jëriñ jabaram nuux ulul azmi min ar-rusul yonent yi 124000 lañ 25 la yàlla wax ci alquran ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñooñu juróom ñoo ci gën a màgg juróom ñooñu kenn la ci yàlla génne juróom ñu màgg ñooñu nuux moo ci njëkk mooy seyxul mursalin mooy doyen yonent yi moom nuux mooy doyen yonent yi mooy seyxul mursalin moo mag ci yonent yi dund na lu ëpp junni at ak juróom fukk dund na ko waaye moom nuux li ko yàlla di fonku yépp nga xam ne nabi mursal la jabaram a ngi safara lan moo tax nuux dugalu ko aljanna c'est parce que ndaw si nekkul woon ci keppaaru jëkkëram dafa féttéerlu woon mel comme sunu jigéenu tey yii féttéerlu programme bi nuux indi woon ndaw si dund ko loolu moo tax yàlla jàpp ko tëmbal ko safara te jëkkëram bokk ci mursalin yi waaye du moom rek ak luut daraba allahu masalan lillazina daraba allahu masalan lillazina imraata nuuhin wa imraata luut kaanataa taxta abdayn min ibadina saalihayn فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله وقيل ادخلوا النار ولا لول القران يالا نينا سبحانه وتعالى من يالا ماغ لين دي جوخ اي مثال ضرب الله مثلا يالا نينا ماغ لين دي exposer ay misaal di leen ko tegal pour ngeen xool ko maa ngi leen di jox misaal ci jabaru nuux ak jabaru luut yéen jigéen ñi pour ngeen xam ne li ñuy wax fi yëpp ay caaxaan la boo amee jëkkër ju baax rek dina la dugal aljanna boo amee baay ju baax dina la dugal aljanna loolu ay caaxaan la laa wax yàlla moo nu ko weddil yàlla nee na ñaari soxna yooyu ñu ngi nekkoon ci keppaar taxta la yàlla wax taxta ci suuf keppaar ñaar ñu baax ay yonent waaye ñoom jigéen ñooñu lan lañ def ñaar ñu baax ñooñu fa xaanataahuma dañ leen trahir baat boobu la yàlla indi alxiyaana la yàlla indi dañoo trahir seen jëkkër yi yàlla nee na ñoom seen jëkkër yi li ñuy baax baax mënuñu jëriñ ñaari jigéen ñooñu kon yëg leen ne bokk na ci défi yi tubaab yi samp pour xeex islam mooy féttërloo jigéen ñi génn jigéen ñi ci biir kër yi ñàkk loo leen kersa dangir loo leen comme tey ni mu amee ci mbedd mi waxuma xale yi sax dañuy paccal waaye maire yi sax dañuy paccal di xóotal da ngay gis benn maire boo xam ne dafa xóotal garambu bi ba ween yi génn tegalu nag tegalu waaw ci jigéen juñ na woon muural say awra jigéen ñi la yàlla waxoon yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai almuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzayna wa kana allah yàlla waxoon na yow yonent bi yonent bi la ko yàlla tàmbalee ne ko waxal say soxna waxal sa doom yu jigéen yi waxal jullit yu jigéen yi gëm yàlla yi nañu muur seeni awra waaw léegi loolu du alxuraan kon yëg leen ne mu amaraat alal mara yéen jigéen ñi yëg leen ne yu bëri yu ngeen di gis tey ci àddina tubaab yee ko def pour ngeen ñàkk diine pour ngeen ñàkk ngërëmal yàlla ku topp programme tubaab yi ci jigéen sa jigéen ñi danañ al ko waaye li am importance mooy fexeel fexeel ba bul ci bokk fexeel ba nga wax ne man bokkuma ca ndeysaan man bokkuma ca dafa am benn kër bu ñu tabax tabax bi pareegul ñu ciy tuur mbalit borom tukki dem Italie gars yi di tuur mbalit ci kër gi waa ji daal di jóge Italie ñëw fekk kër gi fees dal ak mbalit mu yóbbu waa koñ bi yëpp police service d'hygiène ñëw ñuy dugg ci quartier bi di leen marqué parce que waa koñ bi la ñuy fëgg buntu kër yi di dugg am benn buntu kër bu ñu fëgg benn jigéen ñëw ubbi bi ñu xoolee ndaw si comportement am ak colam ci kaw ba ci suuf ni mu mel ñu ne ko dañ doon laaj ndax yow mos nga sotti mbalit ci kër gi mu ne déedéet ñu ne ko kuy seede loolu mu ne yàlla service d'hygiène bi daal ne policier bi nan dem ñii bokkuñ ci ñii luñ la wax dëgg la daal di tëj ci bunt bi tëj loolu lañ bëgg ci jigéenu jullit mooy ku la gis naw la ku la gis bëgg la respecté la waaye tey li am ndeysaan xoolal suñu jigéen ñi kan moo fonkati jigéen ci Sénégal am na ñoo xam ne sax léegi bu ñu jullee dañuy ñaan yàlla yàlla bu ma yàlla may doom bu jigéen ndax jigéen ñi ni ñu mel kon yooyu yëpp ci mu amaraat yi la bokk yeewu leen xam ne dafa bokk ci li tax jigéen ñi yàqu défi yi tubaab yi samp pour yàq jigéen ñi waaye yéen jigéen ñi fàttaliku leen yonent bi nee na itlaatu fi nnaar fa ida bi aksari ahliha annisa yër naa safara man yonent yàlla muhammad maa dem ba safara sol samay dàll dugg biir safara ñu ne ko yonent kan moo fopp mu ne jigéen ñi lan moo leen fa dugal mooy nii ñu mel ñu continuer gàttal lu ci tomb boobu juróom benneelu tomb mooy taxalluful muslimin ci défi yi bokk na ci oh jullit yi nii nu mel ci tardé taxalluf ci ñàkk yëg-yëg ci ñàkk xam-xam ci ñàkk personnalité tey li gën a doye bi ci àdduna mooy jullit kenn fonkul jullit ñi ñu nekkal ci àddina bi yëpp ñun ñoo ci gën a doy waar ñun jullit yi lan moo ko waral mooy ci ay kàmb yu ñu dugal ci ay yoon yu ñu dugal ba amatuñu valeur ñun jullit yi su ñuy wax tey ñan ñoo ëpp xam-xam ci àdduna bi fan la ñuy dem bu ñuy xool tey ci wàllu médecine ci wàllu informatique ci wàllu ci wàllu ci wàllu fan la ñu jëm kenn du dem ci jullit yi bu ñuy xool ñu gën a ñàkk ñu gën a feebar ñu gën a yaafus fan la ñuy ñëw jullit yi ban àdduna ngeen mës a gis ban dëkk ngeen mës a gis président ba nekk mbër ban àdduna ngeen mës a gis ban dëkk bu ngeen mës a gis ñu jël ay caaxaan jiital ko bàyyi xam-xam ci ginnaaw mooy Sénégal xoolal tey làmb bi ni mu amee doole tey boo ne woon benn xale booy jàngal boo nekkee enseignant di jàngal benn xale nga ni ko loo bëgg a nekk demal ci sa classe amal classe cinquante personnes nga leen di jàngal nga xëy suba jël sa bic ku nekk nga woo ko ne ko loo bëgg a nekk am naa benn xale quatrième lay def xaw ma CP CP yaakaar naa lay def ci sunu école xale bi day daw rek di daw yaay ji da koy indi ba buntu école suñ duggee mu daw ñu ñëw wax ma ko man yaay ji suba boo ko indeetee ba ci buntu école bi bul ko bàyyi da nga koy indi ba ci man mu ñëw ma indi ñu indi ko ci man ma toogloo ko mu toog direction man yaay ji demal mu ñibbi ma leen indil leen ma table ji indil ma yar bi mu yuuxu ma ne ko léegi dama lay laaj rek ñaar yow xanaa bëggoo tekki lan moo tax ngay dew jàng léegi wax ma li nga bëgg ñu defal la ko wax ma li nga bëgg waxal li nga bëgg rek ñu defal la loolu mu ne dawal sareet ndeke dafa am xarit buy dawal sareet moroomam buñ jox fas bu xëyee toppi ko bu wàccee kooku may ko cent franc mu defe ne dawal- dawal sareet mooy mooy adduna ma ne ko yow tey rek laa lay rey waaye foofu la toll parce que loolu lañ ko won loolu lañ ko ja ma ne tey boo amoon classe su cinquante personnes nga indi xale yi loo bëgg a nekk nga ne mbër dañ lay wax mbër lañ lay njëkk a wax làmb day tardé réew su ngeen ko nangoo bu ngeen ko bañee làmb day tardé réew su combat amee déglu leen bu baax bonne heure la stade bi fees du ngeen tontu ñoo ñëpp dañoo tëj dañoo bàyyi lu ñu waroon def dañoo doon liggéey ñi tëj seen i bitik ñi tëj seen i kanting ñi bàyyi leen liggéey yi ñu nekk fa 10 heures boobu ngeen wax ba ban heure kenn du def dara ñeneen ñi demuñu mais mi ngi ci biir kër yu toog chauffeur taxi ta tëli bi sax day vide tëli bi doo gis kenn ñëpp bàyyi lu ñu doon def bàyyi liggéey